bu ñu voté ca pencum ndaw réew mi projet de loi buy soppi article 31 bu ndeyu charte réew mi ña nga xam ne ni d'accorduñu ak bile projet de loi daw wutale ci conseil constitutionnel ngir clamé ji fa mu di kuréel bi nga xam ne ni moom lañ tëral ngir mu saytu bu nekkee loi yu ñuy adopté dëppoo na ak ndeyu charte réew mi dogalam doon lu ñuy xaar lool rawatina ci ay waxtu yi nga xam ne ni réew maa ngi nekk ci ay jafe-jafe ci wàllum politique gannaaw bu ñu jëlee dogal la tuxal bés bu ñu waroon amal la jongante falum jiitu réew mi ak it mandat bu président de la république jafe-jafe yi nga xam ne ni moom moo ci mën a tukkee Ndiaga Sylla mi nga xam ne ni xam-xamam daa màcc ci wàllum élection jàpp ni bu juróom-ñaari sages yi nga xam ne ni ñoom ñoo fare ca conseil constitutionnel dañoo war a rek neenal bii la loi te jël ni mu gën gaawee beneen ni bés bi nga xam ne ni moom la ñuy amal élection yi ñu arrêté processus électoral bi gannaaw bi nga xam ne ni njiitu réew mu Sénégal génn na jël dogal neenal décret bi nga xam ne ni moom bi Ndiaga Sylla jàpp ni ba tey mën nañ ko amal ñeenteelu bi nga dogal bi nga xam ne ni moom la conseil constitutionnel di jël mu war a méngoo fukki fan ci weeru mars ci atum 2024 te loole dina tax ba candidat yu war a dem ci jongante yi mën a amal seen campagne ni leen ko yoon maye bu ñu sukkandikoo ci article 92 bu ndey charte réew mi dogal yu tukkee ci conseil constitutionnel ñeel li sukkandidaa yi kenn mënu ko sot ci loole njaga si la jàpp ni conseil constitutionnel dafa war a neenal bii projet de loi te gannaaw bu mu ko defee njiitu réew bu Sénégal war naa nangu bii la dogal te baña a wax ay mbirum article 52 bi nga xam ne ni day tudd mbirum crise institutionnelle